ouverture ji si mujjee samay doom seen papa dafa gaay mais dafa yëkkee xaalis bu bari jox ma te si yaayam la jëkkee nag ba jour bi yi ma toggaleen moo ko yëggi jox ma ne ma toggal sama sët yi xanaa kon ba xam si yaayam la ko jële dama ne ñun ñëpp famille yaayam ñu ngi koy ñaanal daal fan mu gudd bu ànd ak wér ndax fu ngeen sa xol fu ngeen sa mu am parce lu tax yaa awa jooy yéen ko parce que suñu bàjjen nekku fi gaañu na matagul at te danaa ñëw teewe kon day foog suñu xob mm-hmm. suñu xob da am yërmande boo xam ne euh, bokk na ci si la bokk yaayam moo ëpp moo jëkkee yërmande gi ñu ma awa yërëm nit si yaayam la jëkkee mm-hmm. si yaayam la jëkkee. kay ñaanal fan mu gëdd fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge yàlla bu mu réccu dara lu mu doon def fii si kaw suuf mm-hmm. yàlla bu mu ko réccu man daal famille bi laa ba si magam bu góor bàyyi say di sama kër dañuy dem suñu kër ñu këmbal ka ne ka ne ma jox sa yaay kon fa ñoom baa ngi si seen yaay lañ ko jële si seen yaay la jëkke ñoom ñu continuer ka ñun daal ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér ñaan gi moom amul àpp foo ko wees foo ko natt weesu na fa. foo ko natta rek euh, occasion la boo xam ne euh, du ñàkk ngeen gën ñoo xamal kan mooy Yaawa parce que nekk na jigéen boo xam ne askanu Sénégal ñu ngi koy bàyyi xel ràññee ko ci réseaux sociaux yi coow dafay am wax dafay am. kàddu yu ñaaw yi lu ñu jël ko teg ko ci kaw Yaawa yow ab bokkam nga tey nga ñu mën a wax ci ci loolu. kii buñ fi wax fii ba suba duñ fi jóg lu mu am ay mbokkaam ak a lekk nee naa la lekkul dara bàyyi mbokkam boo nekkee nag nitu média nit ñi du ñàkk ñu wax ci yow ñii dinañ wax lu baax ñii dinañ wax safaan soo baaxee sax soo baaxee sax dinañ ut lu ñu taf ci sa yaram mm. mais nag yàlla moom gëmul nelawul gis na lépp ñun ñi tey bu ñu waxul keneen ku wax bu génnee du safe ñun ñii ñoo mën a wax tey jii si mm. kii ñoo mën a wax si famille yëpp sax laay wax mm. ñu ñoo si mën a wax mu safe ndax ñoo yaayam a bokk kon tey jii bu ñu bokkee mu di ñu defal buñ ko waxul rek ñun naa féexa lañ média nag moom nitu média moom du ñàkk ñiy wax lu baax ñiy wax lu bon mais ñun ñi bokk moom xam nañ kii kan mooy maa awa hmm. xam nañ ko bu baax nde depuis xale suñu ginnaaw yi bootu na si kon loolu du tey te du démb te du benn bësit kii nee naa tey buñ fi wax duñ fi jóg mbaaxam gii daal mu ngi noonu daal jéggi na dayo gis nga mbaaxam gii liggéey ji yaatoo ni la ginnaawam gi yaatoo mooy mbaaxam mu yëkki nit ñëpp boot ku mu bokkaax ku mu bokkalul ñëpp sama loxo bi day metti mat na juróomi weer su bëgg mu xëyee mu ngi may oo di ma nemm ko di yëkki xaalisam di ma jox kon kooku nag loolu kooku man dama a saa wax si moom mënatuma wax si moom wax dëgg ngay xelal du ma toon boo tontoo am ñoo xam ne dañu jàpp que ni yaa kilifa te gis nañu ni yéen yéen ay kilifa yéen a ngi teew tey loolu nga xam ne ñu ngi koy wax yow yan kàddu bàyyi leen ak suñu borom mhm. kese danga man bu kii waxee nga tontu bu ko la waxee nga tontu mënoo mhm. xam nga lu fi sës bàyyi leen ak bët bu rëy bi xamante ne moom gëmul nelawul gis na lépp gis nag mhm. bàyyi lépp nag si loxaam nag te kii kii day avancé de kii gisuma lu koy téye kii daal gisuma lu koy téye am na ñaanu ndey am na ñaanu baay te defe naa ne loolu ku ko am ñàkkoo dara ku nekk nag sañ nga ku nekk nag ñaan nga yàlla sa sa baay toog ñaanal la sa yaay toog ñaanal la mm. say mbokk teew te programme yee bari sax ne kon fari bi yaayam rek bu ñu ñëwee xajuñu si baas bi xajuñu si baas bi laa wax da foo yaa ngi gis papaam si ginnaaw gis nañu complicité bi nga xam ne am na ko ci digganteem ak waajuram mm. dañ ko dàq foofu ci ñoom moom mbokkam nga tey euh, yan ci loolu quand parce que nee nañ daaw dafa def appel am ñu mu invité xam ne jarul woon ñu fay teg seen tànk ku mel ni Mame Ndiaye Savon ak góor yi mu àndaloon a seetaan doom loolu laay moom oowul ñooñu leen ne leen kaay leen def li mais du ñëw si yow nga di ko betti wax dañoo xamul rek mënoo ma la naa ne nga taxaw fa jonkan nangama nangam loolu mënuloo ko yàlla mi gëmul nelawul moom moo gis lépp moo gis lépp bu dee kilifa rek kii am na kilifa mm-hmm. boo amuloon kilifa kon bàyyam du toogaax moom du toogaax moom naan mu ngi waxtaan wala ñun ñii di ay moom nit ku nag moom doo ñàkk ñu jëlal lu bon teg ci sa ginnaaw ndax tey li mu am ay fukki moroom moom bëgg nañ kaa am mënuñu kaa am kon dinañ jël baat bu ñaaw teg si ginnaawam yoonante bi moo ñu ëppoon moo ñu gënoon baat bu ñaaw teg nañ ko si ginnaawam ba taay mais teewul fu mu mujj kii laa nee naa la day avancé kenn du ko téye mm-hmm. du rey. kon daal li ko ni sëriñam boo ko dàkkal loolu amul amul parce que ay nitam xajatuñu foofu ay nitam xajatuñu foofu moo tax mu def ko fii loolu kese na mais daax bàyyam a nga yof dañ ko fa mën a jël ah bàyyam day nga yof waaw te kër la fa am titre foncier kon kooku bàyyam kon doomam kenn du ko daax a nañ bàyyi rek ñi ñuy wax. jërëjëf xanaa daal nee naa la day dem rek kenn guddee rek ñaanal ko fan wu gudd ak wér ndax wér su ko amee am fan wu gudd ñun ñi dañuy topp si ginnaawam rek merci beaucoup. yàlla boo ñëwee sa benn morom yàlla sut say morom yàlla sutee benn yàlla leen sutee bu na yàlla ma yéen la am yéen sa yaay ba bëgg sa yaay ba bëgg ñëpp di tarbiyu sa yaay di tarbiyu sa baay bëgg ñëpp bëgg ñëpp lu mu am boo ko nekk ay bokk loo am tey boo tax ma kër yal na la yàlla teg loxo. yal na la yàlla teg loxo yow touché wu ñu si li ñuy wax de li yaa ko def ñu wax yaa ko def ñu wax waa Ndiaye noo toog nii waa Ndiaye noo toog nii waa Ndiaye noo toog nii mënoon mënoon mënoon ñu yëngu ñëw fi teg suñu tànk boo ñu faale ñëw ñu fi xaaral ñu ñu yëngal ñu yëngal ñu. jàmm rek lay am. parce que Seydina Mouhamed jàmm xaaral ñu ñu yëngal ñu. jàmm rek nga am. billaahi. moo ma wax dëgg fay fi ñëw. billaahi. war na la nee na sax benn boppam ci faalul woon billaahi du la faale. boo yëgul woon billaahi du la yëg. waaye saa bu la ci tee ci gis nga sëy bu mag a mag a mag jox la. billaahi. man nga ne instant laa dama dama jàmm kenn boo ñëwee di jàmm nit ñi da ngay sumee ko. waaw moom soxna si ñëpp sol na si ñëpp ku xew la nga sol na si. waaw. yal na yàlla fay lay wax. amiin la kay fay xolam sax. la kay fay xolam. mariage bi bañ naan ku taay ak taay daa dem commande ay ñu commande ay commande doon toog barke. dëgg yàlla. waaw ay de nii rek nga def. seedeel loo ci wax say mbokk la de may ma rek moo nit baax na dañ ndax mbokk yaa looy wax ci seede mbokk yi yaa wax bu pare mën a def social nag loo lu mu la defal boo ko waxee mu bala man xam naa si dara ma barke Khalifa Mali billaahi wallaahi sama yaay dafa feebar gis ma kenn moom mi laa gis moom moo ma doon wallaahi wallaahi da ngay am lu ñu mën a def waaye nit ñu def loo tax ñu bàyyi ñëpp laa ci yow ak xaw ma nu ma koy def. boo leen amee personnalité xool ñi moom ñoo yor jooy yi moom. ñi waaw doomi doomi yaayam lañ doomu nijaay mi ay ñuy toog kay yaayam rek am nañu feneen fu ñu mën a daal ak feneen fu ñu mën a dem waaye yaa aw moo ñu bëgg teg ñu place fonk ñu bu ñu dajeeg moom ñoom programme ku nekk mu ngi ut lum la jox ah ba mu ma mu melee nii ba léegi ba mu juddoo ba léegi judd ci suñuy loxo ba léegi changé wul du coup bu xewlee lu mu xewlee lu mu tuuti tuuti dañuy ñëw a seen taaw kër ñu ne bàyyi Seydi ah